jërë ngeen jëf mbokk sunu marché yéen ñi bàyyi xel émission bi nga xam ne moom moo leen di jox uh, ruq yu baax yi ci seen uh, site web sunuactu point com tey nag ñu ngi ci beneen uh, bon coin maanaam beneen ruq bu baax di Xelcom cosmétique waa kër Serigne Saliou Mbacké bu ngeen déggee waa kër Serigne Saliou Mbacké xam ne ay mbokku taalibe lañu yu yëngatu ci ay mbir yu baax ngeen dégg ci biir xel Xelcom cosmétique cosmétique nag bu ñu ko waxee di ay xeetu produit yoo xamante ne nii lu jëm ci seen wàllum diw naka ngeen di fexe ba am diw yoo xam ne diw yu mucc ayib la ngir seen yaram na jamono tàngaay bi ñu nekk waaye itam Khelcom cosmétique ñu foofu dinañ yëngatu ci lu jëm ci wàllum parfum waaye itam nañ yëngatu ci lu jëm ci wàllum lépp loo xam ne ni day tax ngeen am bien-être maanaam ngeen sentir xet yu baax waaye itam sentir seen yaram di nooy euh, fépp fu ngeen nekk rek euh, li leen wër daal di nekk loo xam ne nii lu taaru lay doon lool nag waa Khelcom cosmétique waa kër Serigne Saliou Mbacké euh, ci la ñuy yëngatu fii ci pàkku ginaar marché Ocass ci route bi nga xam ne moom moo di route Ndiobène Taye kon xam naa ne Thierno Faye ngir rek daal ci bañ a nekk di guddal ak a tàllal dañuy daal dugg ci biir xool xeetu bagage yi nga xamante ne nii moom la waa xel Xelcom cosmétique andil waa dëkk bu seere bi Touba ci ay xeetu produit high class yi nga xamante ne nii amul fenn ci qualité boo xam ne nii qualité bu kawe la euh, ci li mu jëm ci wàllum produit cosmétique kon dañuy dugg ci biir xool ñoom Mor Ndiaye ak Talla ak ñu nekk ci biir xale yu baax yooyu naka la ñuy gérer li nga xam moo di Xelcom cosmétique waa kër Serigne Saliou Mbacké moom mi tax nu am xéwal. mbokk suñu marché comme li ñu ko waxee woon ñu ngi fii ci xel Xelcom cosmétique waa kër Serigne Saliou Mbacke taxaw nag ak gérant bi di euh, Mor Ndiaye li ñu naan tungu teew ngeen taal Mor Xelcom cosmétique ci yan la yëngatu. ginnaaw bu ñu siyaaree mbokk yi di nuyu mbokk taal bi yëpp di leen wax ne yéen a ngi fii ci bërëb boo xam ne ñu ngi koy waxee Xelcom cosmétique nekk fii ci Touba marché Ocass Pack Ginaar ay dong nekk fi yoo xam ne. dañuy yëngu yi lépp loo xam ne produit cosmétique la ginnaaw bu ñu sante suñu sëriñ sëriñ Saliou ak sëñ Abdou Karim Mbacke am suñu fàllu di ñaanal ñi ñuy seqal liggéey bi yëpp ba ci xale yi membre bi yëpp nga xam ne ñoom lañu seqal liggéey bi mel na ne Khelcom cosmétique ci ay produit yu qualité ci lay yëngatu ba tax clients yi taamu ko loolu naka nga def ba di ko offrir clients yi waa xam nga lii moom day loo xam ne ni suñu liggéeyal te dañ cey yàgg dañ koo jàng dip ñuy xale ba léegi ñoo ngi ci dañ koy jàng bu man ko à chaque fois dañuy xool li nga xam ne nii moom la nit ñi yittoo ak li nga xam ne moo nekk à top nekk ci jamono ji li dox ñu dem cere yu sori dem wuti ko indi tegal ko client moo tax bu ñu ñëwee ñoom lépp loo xam ne amuñu ko rek ñoom duñ ko bëgg mais lépp loo xam ne am nañ ko rek ñoom ñëpp dañuy daw wut ñu ndax dañuy yàkkam suñuy bagage ñëw sax bañ daw ñëw dugg ci biir bépp produit bi ñuy jaay nag lépp ay qualité lay doon lépp tamit lu méngoog jamono lay doon yoo xam ne ni képp ko utiliser di nga ci gis sa bopp bu baax a baax. fi ay ay ay ay maquillage yoo xam ne ni ay maquillage high class la. Mm-hmm. ku mel ne black up gis fi ay cheveux naturels ay closure yoo xam ne nii euh, cheveux yu mucc ayib la. waaw gis nga ko yooyu yëpp dañ koy préparer ndax lépp lu mu mën doon dañuy am client cheveux yi tey jii dëkk bi boo laajtee ku jaay cheveux bu baax fii lañ lay yebal mm-hmm. bu dee maquillage booy laajte maquillage original aussi fii lañ lay yebal mu nga yooyu bu ñu demee ba xam la ci nag il faut nga. changer programme xool li nit ñi bëgg à chaque fois nga di ko wut di leen ko exposer. tagal leen ay xeeti parfum yoo xam ne amul fenn parfum de classe. waaw xam nga rek moom lépp classe lépp rek <laughs> ci classe lay doon quoi mm. xool tamit li nit ñi gën a yittoo li dox toujours rek li ma la wax li dox toujours si jamono ji rek. li mujjee génn li mujjee nekk top ci ci ci maquillage xeeti produits cosmétiques cheveux naturels et tout. cheveux naturels polycire cheveux red frisé cheveux semi ondulé tout ça yëpp te aussi yëpp la ñuy yëpp yëpp la ñuy exposé teg di jaay. bu fekkee ci lu jëm ci lait corporel yi la diwu yaram yi diw yu France yi Côte d'Ivoire yëpp yéen koy jaay. yëpp fii moom ku fi ñëw rek di nga gis sa bopp day bërëb boo xam ne mooy li ñu wax ci première bi rek bërëbu dong yi la. képp ku ñëw rek di nga fi gis noo fa bi nga toll di nga gis loo xam ne di nga méngoo ak moom bañ mën la ko proposé mu toll ak yow nu sa doole toll rek boo ñëwee di nga fi gis sa bopp. bu dee ñi nga xam dañuy too produit qualité Amérique France tout ça tout ça mu ngi fi am. tàcceen bi nga xam ne dafa xew ci jamono temps yi xale jigéen ñi moom la ñuy wër. gam bi nag tout ça am na sérum type boo ci bëgg façon boo ci. injection bi injection bi ampli tout ça yëpp am na pour le moment nii te lépp loo xam ne nii ñu ngi ko yittoo rek moo ngi fi. te loo xam ne ñëw nga fekk laaj ñu ko amuñu ko sax boo toogee deux jours bu dañ la koy defal commande mu ñëw amul luy tardé. lépp loo bëgg rek daal da fekk. da ngeen koy jaar en gros ak détail ak demi gros. na lépp en gros détail demi gros mooy li ma la wax kenn ku ne boo ñëwee niveau bi nga tolloo boo ñëwee di nga fekk ñu préparé la loo méngool quoi. Mm-hmm. ci loo tolloo boo ñëwee di nga fekk ni nga toll ñu jaay lu toll li nga yor mm-hmm. nga dem dañ lay jàppale ci bagage yi bu dee koo xam day soog a dugg ci njaay yi dañ lay wax la li nga xam ne moo gën a dox waxala li nga xam ne boo ko tegee sa place du yàqu. du tardé say bagage te nit ñi dinañ ko bëgg dina leen arrangé mm. mu yooyu tamit day am solo. dafa am solo conseil yi ak jàppalante yooyu mooy liggéey bi pour le moment ndax képp koo xam ne ñëw na def di def débutant la mm. yow yaa koy de mm. mu xam lan la war a jël jaay ko ba génn ci. xool li nga xam ne nii milieu ba mu nekk lan moo méngoo foofu noonu nga proposé ko na ko lii milieu bi nga nekk boo fa exposé loolu lii moo fay gën a gaaw lii moo fay gën a gaaw bu buñ ko jëlee ñoom ñu am problème boo gisee nit ñu taamu fii loolu la ndax ñun moom ñaanuñu soxoruñu dañu xool li nga xam ne boo ko jëlee bon du problème te diñ ci génn ñu proposé la loolu boo demee day yomb ci yow quoi. kon daal yaakaar naa ñi taamu ñi taamu xel waa kër Serigne Saliou Mbacke Khelcom cosmétique juumu ñu ndax dégg ngeen li nga xam ne moom la gérant bi di Mor Ndiaye wax mu nekk fii ci pàkku ginaar nag yoonu ruutu Ndiobentaay bi Mor ndax mën nga ñoo jox numéro yi. numéro yi benn bi 77. 628 103 51 boobu mooy sama numéro ba mooy di nga si jot beneen bi Mourtala Fall la 77 323 55 48 boobu aussi boo ci wootee di nga jot ki ñuy wax Mourtala koo ci jot rek dina la guider li nga bëgg bu dee laajee laaj la dinañ la ko wax bu dee loo soxla la fi nga nekk mun nga ñëw woo wax ñi li nga bëgg ñi libéré la ko mu ñëw amul benn problème daal. kon daal 24 sur 24 yéen pare ngeen di xaar clients yi 7 jours sur 7. pare nañ heure bu nekk ñoo ngi ci heure bu la neex nga ñu woo numéro yi ñu joxe tamit heure boo ñu wooyee di nga gis ko la wuyu boo waxee li nga bëgg boo jotul pour ñëw tamit dañ la fekk fa nga nekk ñu livrer la say bagage nga xool sa facture fay mu jeex. jërëjëf kon boog yaakaar naa mbokk téléspectateurs yi clients yi nga xam ne ñoom ñoo taamu waa kër Serigne Saliou Mbacké Khelcom cosmétique juumuñu ñu ñu ngi fii ci marché ocas ci yoonu Ndiobène Taay bi ci pàkku ginaar bi gis ngeen li nga xam ne mu lañ leen wan ci PC ci li nga xam ne moo jëm ci ay produits de qualité ay diw yu baax ci ay greffage ba li nga xam ne ni moo tudd na ko sànq muy glutathione eh, di diw bi nga xam ne xale jigéen yi moom la wër ngir weex tàll yaakaar naa ni am na ci bépp xeet injection bi euh, lait bi savon bi lépp am na ko fi bu ngeen ñëwee di ngeen ko fekk fii ci waa kër Serigne Saliou Mbacké eh, Euh, Khelcom cosmétique ci moor Ndiaye di gérant bi am na tam ñoom Mourtala ñoom ñu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk sawar lool te am disponibilité kon mbokk mi ngi noonu adresse baa ngi noonu di jàll ci seen baaw écran Cheikh Gueye di leen ko jàllale ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen dig daje ci beneen bon coin jërë ngeen jëf